subhaana man liya tajalla fi safar sannata jaysasin wa xibtu da safar ku gis jataa bi xam ni waa ahlu xasida ñoo fi daje ndaje mi nag li ko waral mooy saa su nekk dañuy soññ ko ci liggéey bi di ci gën di jaaju di ko gën di baaxal di ko gën di rafetal lii nga xam ne sëñ Xamsanu Mbàkke moom sëñ Suhaybu jox nañu ko muy pàkk boo xam ne dafa yaatu lool mu jox ko addiyee xaside yi lu mu am lépp def na ko ci waaye ñun ñii ne xool nañ ba xam ni war nañoo góorgóorlu am nañ gàcce lool ci buñ ko seetaanee lépp dina ko féetewoo te ñun duñ ci def dara moo tax ñu fas yéene yeneen ñaari mbaar yi def ci liggéey bii ñu jëm cee góorgóorlu jëm koo taxawal mu yegg balaa màggalu xasida gii di ñëw. di santaat sunu borom subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi alayhi salaam di sant Cheikh Al Khadim mi nga xam ne ci coobareem la nu bokk ci ak njabootam mu mel ni ni ko sëñ Ibrahima Guèye waxee rek noonu la deme li ñu dajale fii mooy liggéeyub xaside yi barab bi ñu nekk itam mooy barab bi am Amsatu Mbàkke joxe ngir ñu di fi taxawale magalu xasida yi ñu tudde ko péncum xasida yi am penc nag balaa neexe yendu day am mbaar yu sedd te yaatu mu mel ni dañ fee xayma ñetti mbaar mbaar mi ñu nekk mel ni li ci ëpp noppi na ñu tuddee ko sëriñ Masamba Mbàkke mi nga xam ne xaside yi ñoo sàkkoon ci borom tubaa mu boole leen moom mu di leen li eh, mbaar mi ñu toog nag ni ko sëñ Ibra waxee sëriñ am satu xaaru ci kenn lépp moo ko def ba mbaar mi mel nii mu mel ahlu xaside nag xam ne ñaari mbaar yi ci def suñ ko bàyyee sëriñ bi dana ko defar te sëñ moo daaminte nee na koo dégg ñu ne raw na ay moromam la tax mu raw leen ba mu koy def ànd ñoom waaye ku ànd ak aw nit defandook ñoom la ngeen defandoo yeneen bokk lu ngeen am waaye booy def ñu seetaan nag boo amee ñoom du ñu am am CMC nag daa bëgg nu am mu am moo waral nag yëgle na woote na waaye Cheikh Fall dee woon na yoon wi am na woote waaye amul nege woote na waaye negewut ci seen sëñ sëñ Muntaxa mii fi nekk waxoon na ne ku dem ma dem ku demul ma dem kon nag ku bëgg a dem takkul te fabu ci foofu la sëñ am sutu nekk. moo tax nu bëgg nag soobu ci liggéey bi diggante bi xat na lool ndax màggalu xasida yi ñu jëm ñaar fekki fan ak ñett lay doon ci weeru tubaab yi ñu jëm muy eh, gaaw bii di ñëw tey gaaw la bu gaaw bi dellusee ba dellusiwaat rek mooy magalu xasida yi daanaka weer moo dox suñu diggante ak màggalu xasida yi tey suñu yéene ak sunu yitte mooy bala ñoo egg ci màggalu xasida yi ñaari mbaari yëpp nu bokk ko xadd li ci war ci ay ippe nag ya ca war yëpp ñu def ko sengee ko xadd ko la ca war ci ay ventilateur yu koy upp ñu monte ko ca ba ku ñëw ci màggalu xasida yi da nga mucc ci aw naaj danga mucc ci ngelaw loolu nag yitte ju mat sëkk mooy tax mu mën a sotti kon nañ ci def yitte te yitte murit xajul ci dara suñ ci defee yitte ca ndox jëm ci rek danañ ci taseeg ndimbalal sëñ Tuubaa kon na ñu ngi ciy woo mbooleem ahlu xasida rawatina kuréel yi nga xam ne nag dañoo nosoo doon benn am ay jëwriñ ñu jiite liggéey boobu kon loola moo gën a yomb jëwriñ ju ci ne na soññi ak ba mu jiite eh, taxaw ca dajale seeni addiya indi ko ñu teg ko ci loxol sëñ Moustapha Mouhamadan mi nga xam ne moo jiite liggéey boobu yi koo xam ne am murit nga boo xam ne da dox sa yoonu bopp rek jëm ci sëriñ bi ci di wéttali koo xasida yi sëriñ Moustapha Mouhamadan moo yor liggéey bi ku ñëw loo ko jox ci liggéey bi la jëm kon nag ñu ngi ciy soññi mboolem koo xam ne daal yaa ngi yëg sa bopp ci xasida yi yaa ngi yëg sa bopp ci xasida yi xasida yi nag yaatu na yaatu goo xam ne ñi koy bind ñi koy jàng ñi koy déglu ak ñi koy béggee ñoo ko bokk kon day mel ne murit gépp bokk xasida yi ñu ngi ciy woo ñëpp tey di ci xaar ñëpp yàlla na sëñ Tuubaa defal nañ ci tawféex ba nu bokk ci ñi nga xam ne ñoom la sëriñ Tuubaa di fay ci liggéey bii nga xam ne moom lañ koy liggéeyal ci xasida yi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum daanaka. li ma doon wax lépp sëñ Lu Jóob wax na ko ak sëñ Ibrahima Guèye ay xanaa mottali tuuti rek mooy liggéey bi ni ñu ko waxee rek liggéey bu yaatu la te di liggéey bu mag waaye sëriñ bi di sëriñ Xamsatu ndigu ci kenn lépp luñ ci def moo ciy jiitu taman ci ñëpp euh, kon nag képp koo xam ne nii da nga yëngu ci xasida yi ak noo ci mën a yëngoo wala képp koo xam ne nii jëfkatu lu baax nga te li ngay def yàlla rek tax ak sëriñ bi képp koo xam ne it am na fenn foo mën a jaar ba mu agsi ci sëriñ bi it te fu leer bu ko defee it maanaam sëriñ bi daan la ko defal ci liggéey bi. ku fi indi dañ ko defal firnde joo xam ne nii maanaam day wane ne la mu indi agsi na kon te it maanaam duñ ci taxaw parce que yéen ni ko sëriñ bi bëggee rek ñu defee ko noonu ndax euh, liggéeyam Sëriñ Tuubaa la te liggéeyam Sëriñ Tuubaa moom maanaam euh, kenn kenn it du ko ëpp kenn du ko weesu kon nañ ci fas yéene def suñu kem kàttan te yaakaar ci ngërëmul sëriñ bi ndimbale moom faaw mu am ci ndax sëriñ bi moom lépp loo xam ne da nga jóg te jëmam rek tax nga di ko def maanaam day mel ni niñ koy waxee bérëng bërigo ci mbartal lay doon dañ cay eh, da ngay féetewoo sag ba mu gàddu la coono bépp kon ñu ngi sant tey gërëm tey ñaan yàlla eh, defal na ci tawfiq ak ndimbal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ilayka ya xayral bariyati